gërëmul nit doo ko gërëm maa ngi leen di remercier yéen ñi nga xam yépp da ngeen na bayyi loo leen doon def duggu ci coalition Dionne 2024 di coalition bi nga xam ay parti politique ñoo ko samp ah yu bari denk ma ko coal mooy coalition boo xam ne suma ay nawle yoo xam ne ay kandida lañ woon ñoo toog réfléchir ne finalement bàyyi nañu seen candidature fekk si ñu loolu ñooñu amuñu seen fay maa ngi remercier it suñu compagnon yi ñun yàgg nañ wax ne wutuñu ay militant militant day ñëw pousse auto dirigeant bi bu paré bu tàkkee dirigeant ba continuer <laughs> jëm gossage bay fi gay <laughs> donc ay compagnons lañuy ñuy ñu ñu àndandool modifier xarkanamu réew mi lolou dinañ ci dellu si ñu ñu àndandool gën développer réew mi parce que président Léopold Sédar Senghor bari na lu mu def ci réew mi ñun biñ nekké goné di jang meew sax dañ ñu ko daan jox école meew dañ ko daan may fourniture gratuite bu sa bay nekké fonctionnaire lool nak mom ëppoon na parce que doomu baykat bi du ko am ñu jox la bourse un cinquième am déet <laughs> lool lepp am na fi internant am président Senghor est un champion li mu liggéey ci réew mi bari na bi mu demee tabax réew mi xëy moo fi njëkk a xëy suba ne bàyyi naa loolu rëy la président Abdou Diouf ñëw toog président Abdou Diouf ku wax état né abdou diouf loloy métier tirent na ci baré, baré, lu baré. baré baré surtout qui jam ak dal surtout ci jam ak dal lako ça c'est important tant ou présent abdou diouf da na 88 ak année yoy monde bi 68 88 les, années en 8 2008 yep yoy yep day yengoutou mais président Abdoujou, j'ai renoncé na réew mi ci dal ndax ku dal la woon mon lañ fi njëkk a gagné ne Afrique souvent buñ la gagné nga def guerre civile donc nous, ñëpp dañ leen di féliciter MoDem, pas Ablaïwad, un champion de l'émergence moo fi que andi ay projet d'envergure ñime xey suba xoti tali commencé tabax ay autoroute corniche bi a ngi ni melone bo jógee waan fanok ñun bo waan fanok passé université ba Pa ablay liggéey na ci mi lu mu dem sama patron ça m'a patron. Patron un jour, patron pour toujours. <laughs> patron un jour, patron pour toujours. dañoo Ande. Liguez ci réew mi mandat bu ñëk bi projet buñ fi tabax ba ci BRT bi man la

ma ne ko dëkk bi gën a jege aéroport train bi aéroport la jëm dëkk bi ko gën a jege ban la ci Thiès onze kilomètres à vol d'oiseau dañuy defar train électrique deux fois deux voies buy dem ba aéroport njëkkee jam ñaajo suba mu continuer ba Thiès après ma dem fi fii Tambacounda ne leen deux fois deux voies bi wax nañ ko ak sidiki buna ya nga fon ci meeting ba 2017 man nañ ko xëc ba fi tamba projet yiñ fi wax yépp sen frère bi tok mi nga ci bir ken mënu la dindi histoire senegal lolu ken mënu ko bind te sama tour mohammed bun abdallah jonn du ca nek impossible waxtaan wax dëgg ca la bàkkoo wuñ ko nag ndax suñu yéene ci Sénégal ëpp na loolu ëpp na ko ay di doxale buñ ko tolloo dinañ ko wax donc damay remercier tey ci ñi jàpp ñëpp compagnon yi ci parrainage bi bala nga naam naam ne fa tey fi mu nekk mën na ñoo bokk ci rëkkale yi bokkuñu ci de ñoo porte on porte nag la combat mais bokkuñu ci et parrainage yooyu maa ngi ciy gërëm ñëpp di ci gërëm d'abord grand Thierno mii toog nga xam ne parti yi fi nekk yépp dañ ko def suñu mag mu am APD bëggoon na nekk candidat baayam di kóllëre sama baay sama maga nga ne Cheikh Diop Dione ma woo ko sama kër ne ko grand tier dama buggoon boo nekkee boo bëggee nekk candidat nga bàyyi ko nga yow jàppale ma ndax ku ku am fayda nga ku réew mi respecté nga ñu ànd liggéey mu ne ma Mohamed comme ning ko doxale bàyyi naa sa papa ak papa la woon léegi yaay sama kandida bi ñuy wax moo tukki Lamine Aïssa Fall anamu jógal taxaw ñëpp gis la moom ak <laughs> moom ak Maguette Ngom Maguette jógal taxaw ñëpp gis la Mohamed Moustapha Diagne jógal taxaw moom la njëkk yëpp moom moom ci ñi ñu dàq moom ak Muniru ñoom ñett ñi ci ñi njëkk bind ne candidat laa war a doon ca lañ bokk booba xalaatuma ko sax booba waxaguñu sax ne bennoo am lii ak lii bu kenn waxu fi ay waxu tànn candidat tànn amu fi donc loolu ñoom dañoo xool ñu ne kii ay possibilité am ak capacité war naa tax mu mën a yore réew mi ba ñu réfléchir ba ne dañ koy def sama xel ma toog ma ne waaw man kan lay dénk coordination nationale wu système mu parrainage bi yëpp ñuy taxawal sama xel gis sama benn rakk boo xam ne kilifa gu mag nekk baayam di sama baay Pa Alamine moo ñu boole ci salon mu nekkoon sama conseiller juridique dévoué nangu liggéey man liggéey Mounirou Sy professeur de droit Mounirou jowal tax ma waxtaan teeg ñi ma war a waxtaanal ci suuf wooko ko ne ko Mounir dama bëgg nga nekk jon jonn 2024 bii di ñëw nga nekk coordonnateur bi Mouniru ne ma may ma ma woo sam papa mi nga màkk su ma nee ma ne waaw bu ne déet ma ne déet ci mag mu tol ne moom nekk docteur en droit mu ne ma bàyyil ma woo sam papa ma ne Mounirou nag laa bëgg définitivement mu woo papam papam ne ko demal demal demal ñetti yoon am déet mu woo ma ne ma dix minutes après grand woo naa paa bi paa bi ne ma kan la ma ne ko bu nab la laa mu ne ma def ma ne demal demal demal ma ne ko alhamdulilah noonu la moo tax su may remercier ñii ma wër ala kulliyaal dinaa leen tudd ba dara amagut ah yàlla def nag boole ñu ak ay gor suñuy xarit suñuy mbokk suñuy ay lépp ñoom asana ngi ñoom délégué yaa ngi nii laxaat maa ngi lay nuyu ñëpp maa ngi ñëpp su ma nuyoo rek daan bu naa damay daanu ndax dinaa bàyyi ay ay nit ok béranger dinaa damay tëb sama conseiller maa ngi gis Omar Sène waaw docteur Maxime ñëpp voilà donc Fat ah maire de Kahone waaw ah, kooku moom maire de Kahone mi nga nee toog Fatou jógal gaa gis la prof de géographie la hein eh? ah oui et d'autres et d'autres ah déet ñi sama gannaaw mom, sama goro d'abord tax <laughs> karim ah, sama goro sama rak di sama mbokku talibé ñu bokk métier nek ay ingénieur informaticien mu jànge Lyon nek États-Unis Matar Akim ananga jógal yëpp gis nga waaw di di di di di taalibe ñu bokk kër di jeex na <laughs> Basiru Mbasek voilà donc Kajoor a ngoog Moussa ana Moussa Mohamed non Moussa jógal tax yow Sarr nga da

yàmba déet last but not least kii sama la nekk jàmbaaru fàkk tëdd comme on dit waaw Mohamed dem na fa nekkoon candidat am na yeneen de ñoom Modou Diop ana Racine voilà Racine ñëpp donc fii daal tey remerciement la noyin noy nduma ko remercier parce que sama goro la sama rak la ko may ah <laughs> rakku Abdou Touré suñu rak lañ ko may donc xolal ki ki mom mom mom may remercier voilà Angloma Angloma la tar jogal waaw waaw Abdou Diouf Assane bay Madiagne Seck ñepp nga fi dal fi dal ñepp nga fi waaw ñëpp a ngi fi waaw bu bu bu ñu nee Gossas sama mbokk yi Samba Diouf gars yëpp a ngi fi euh, mu ñaan ñëw na euh, euh, Fallou Sey ñoom rek ñoom ñëpp j'ai j'ai reçu les messages daa le maire ñëpp ngi fi mi ngi nii ñëpp a ngi fi yëpp fi foofu moom sama dëkk la bu loolu passé dina cabaxal rek ñaari point et fa bi njëkk il nous faut un comité d'organisation extrêmement fort comité organisation bi gën lañ bëgg li tax mooy liggéey ci logistique bi semaine bi normalement ma jot suñu douze voitures yi nga xam ne mooy convoi bi ñu brandé auto yi il faut ça affiche xex la ndax kan bi fi mu nek kenn ta gis ngeen affiche kenn Khalifa Sall day deg na amna ben ben yu mu yu mu xasa yu mu jota amagum biir si kan kenn ta am affiche ci réew mi annonceur u kan le huit Saint-Valentin jigen ni loolu lepp loolu ngi bir di donc il faut que le comité suñu grand tiers nee na euh, bi ñu ngeen présenter euh, Maguette présenter l'organisation du directoire qu'on mettra en place dama bëgg ñaari élément am ci yu important bi c'est un comité d'orientation stratégique foofa la cogitation bu mag bi ak mag ñi yore kàngam yi yore dëgg-dëgg reflexion bi ci biir campagne bi Mahamed gënal na tàng a tàng wala na gën a oyof wala loolu lépp ngi ci biir waaw ci biir campagne yi am ay variétés donc loolu lépp ñooñu ñoo la naan nii Pape Abdou Diouf mom da taxaw né ma xiiral ñu ne <laughs> mala ma yolamal <laughs> ñu ne na tang donc man dina il me faut comité bobu d'orientation stratégique waaw ay personnalité yu mag yo xamné dañuy nek sama wette pour joxe direction bi deuxième comité vraiment tout ce qui est mobilisation et organisation et fofu on va faire 10 meetings nationaux. 10 meetings you mark nationaux Yo xam comité d'organisation du qui est piloté parce que c'est du big money un rien qu'un grand meeting c'est près de 40 millions minimum Tribunier qui a eu location il en faut 10 Amener une liste yi date et tout comité d'organisation bi moom laa leen koy jox ñoom ñoo ci liggéey commande yaak heure ba muy démarrer lépp mais département yi les petits meetings ci mandataire u département yi yéen la ñuy jox budget yi ngeen gérer ko yéenay wut tribune yéenay wot waaw parce que sinon du jigéen parce Buma joge suma tambale won Jurbel par exemple ci ngone ga dem Gossas ganaw eh, ci après dem bambay delu ci Jurbel jurbel par exemple pour meuna dem bakke suba mënuñu am ay tribune fu nek en même temps donc dañuy def meeting national Jurbel, dem Gossas yen ngeen eh, defar tribun, tribune yen xam stade la yen xam fale bambay wa bambay def noonu Notelal Mbacké notelal wa Bambay? ok <laughs> y a bokk cette <laughs> région donc ñu jox len yéen louer sen matériel xam xel comme la nous xam ñun dañuy ñew rek dérouler ok voilà andi suñu sono andi suñu chi euh, chi ci ci flotte bi amna ay euh, ay genre F 150 am ay gyrophare yeeg sono yek yep da rek dérouler donc yoyu c'est un comité extrêmement important amul tam dañuy ñëw taxaw ah nañ jàdd kër Madiagne añ di xaar euh, nit ñi le candidat arrive direct au meeting bu ñëwee fekk ñëpp paré nañ ñu nous li ñuy ñun continue donc il va falloir comité d'organisation nationale liguer les mandataires de manière très avancée pour que meeting yi ñu wara def ci département yi ñu def ko affiche y aura des affiches mais actuellement c'est très difficile pour am affiche pour am euh, espace bi donc oriflamme ñoo ngi toppatoo ay oriflamme pour man ko def ci aksi yi waaw man ma ngi liggey man nit de man ak euh, sama sama ay staff waaw a ah, man na continuer ci logistique bi il faut euh, caravane bi hôtel ya alors ce n'est pas man def naa ay campagne ce n'est pas cohérent di qui di wari campagne jël sa staff yépp ngeen and, ku leen di téru ya quelques kilifa yu may andal responsable bu nek téruma organiser sur place ce meeting bu ma ñëwee suñu paré ñu tàggoo ci jamm ñu jox la sa budget nga géré d'accord donc dinañu wax euh, département petit meeting temps bu que temps ñu organisation yi ce sera important d'avoir cette structure en même temps que d'avoir également le comité d'orientation stratégique bu passé programme damay mes rek nous, nous ñun ñuy Inch'Allah. lutax candidat yi ci biti ñu donc candidat Vous êtes bi Donnez continuité Nous, on n'est pas pour la continuité

Coucou ko bëgg dinañ la battre Et looloo tax man ma leen di battre politique économique politique économique dafa bari façon économie du finance du finance de moo tax nous ñu mujj créer ministère de l'économie créer ministère des finances parce que dañoo defe ne woon ne benn la ku ko yaakaar rek da ngay nax sa bopp économie mooy nu ñuy togge am réew pour mu avancer finance mooy comptabilité DFC sax la ñuy wax directeur finance et comptabilité koo kay mooy jënd naa ñetti butéel yu ndox butéel bu nekk cent cinquante sama kees temps ci des fay na temps loolu comptabilité di donc comptabilité métier bu baax la ga mais duñu fi continuité ay système comptable dañuy andi rupture andi renouvellement andi progression pour réew mi jëm kanam lolou moy réforme yi noyine sama rak sama goro wax réforme bu mag yi ñëw man dama bindub téré né il faut donner à chaque jeune africain un métier bala ngay am liggéey am métier sénégalais yi xalé yi amuñu métier nañ leen wutali ay métier lolu formation professionnelle la ministère de la formation professionnelle ministère yi gëna mag lay nek incha allah boo leen ma joxe rew mi et il faut que xalé yi yeb am métier lolo tax suba ñu ci genn ah réforme bobu nak c'est la grande réforme éducative koku boko amone ci saint mandat cinq ans rek daanaka yow yow yow yegal nga rew mi yegal nga fu mu agul réforme de l'État Nous, wax na continuité est-ce que da ngeen a bëgg continuer ci kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu duñ nangu duñu nangu réew di continuer ci kumba am ndey kumba amul ndey loolu du fi am dootu fi am man de moi sénégalais yi dama ne réconciliation nationale jubo bu sincère ñu teg ko ci dëgg nag bu ñu juboo ba pare màggandoo wante ñi di di di jëm deux mètres cinquante ñii di gën a gàtt loolu ko teg am déet ma ne d'accord naa tolloo grand Thierno wante nañ ma jox liñ koy jox <laughs> ah les lions du Sénégal waaw jërëjëf ah grand Thierno waaw ah, waaw yooyu moom dañ leen di félicité waaw waaw ñun ay lion lañ ñun ñun dañoo bëgg dañoo <laughs> ñun dañoo bëgg buñ defee deux meeting rek qualifié déet man ñaari télé la def am parrainage ñu ne ma noppi balaa réew mi di yëngatu ma ne ñaari télé rek laa def am parrainage defuma benn tournée bu ma defee ñaari meeting dem deuxième tour buñ ma seetaanee nag ba ma def dix meeting nationaux premier tour laa jël incha allah njariñu réew mi kese la parce que wutuñu ju dara pour ñun waaw ah li sama rakk wax sànq tudd na ko pouvoir d'achat ñun bu ñu amee réforme de l'état kumba am ndey kumba amul ndey jeex ci réew mi réconciliation nationale jubóo bu sincère am ñu teg ko ci dëgg gëm sa réew la souveraineté politique et économique gëm sa réew mbir mi du rek samay xarit yu dëkk euh, Japon yu dëkk déedéet business bi pour secteur privé national bi la te loolu yëpp dinañ ko expliquer sénégalais bu yaboo grand gars yi bu ñu defee baxna legi, lol yeb dinañ ko expliquer sénégalais yi ah limay terminer moy ci pouvoir d'achat bi sama frère wax na ko pouvoir d'achat likoy andi mom la américain di wax from farm to fork de la ferme à la fourchette Moi agroalimentaire di agro-industrie di industrialisation li bay transformer mais dañ leen di encadrer ñu usine voilà réformer what le système de financement Il y a des bonnes idées Ablaye nous, nous, la Quand def cette déclaration lundi lundi welcome Axiga. <laughs> nga client <laughs> donc lundi nga wax ak sa coordinateur jeex na mouvement la bu bees buy ñëw ana waa Jalambere waa jege sil kii non non non na ñëw Aliou jaral ci gannaaw me nga Kolda son grand frère était le maire président ancien maire yi moom ak Aliou ñoo nekk Elan nanga def nuyoo la ak sama gars yi ne ñu ñu dalal la Aliou Koita département bu Kolda arrondissement bu Mafati commune de Diamaguène une minute sama ñaata mandat la def très bien. Gouna. Et Moi, moi, secrétaire général de tous les anciens maires. très bien. alors ah, moi je suis là pour voilà. et Jala Mbere ku koy Inch'Allah. incha allah 24, 2024 moo koy gañe ko parce que la population de Jala lui réclame c'est une population pistée. nous tous nous savons qu'actuellement le Sénégal va mal Aujourd'hui, le dire et c'est l'homme de la solution jërëjëf nañ ko yemale fii rek parce que gars yi dañuy après convoqué leen ci suuf <laughs> bëgg a suñu affaire voilà commencé nañ mais ah sama gorongoog Xaadim jërëjëf dama doon junj rek tey dinañu waxta dellu si waxtaan lu bari mais waxtaan c'est bien mais terrain la organisation définant grand bi wax na leen foofu la jexale ne amna kayit bu génn sank à partir de lundi war nañu déjà désigner les plénipotentiaires waaw defe décision yuñ ci on encaisse on supporte d'ici lundi et inshallah Eh, ñu ñu ñu ñu ñu tàmbale loolu mandataires yi ci département yi dinañ leen jox programme de meeting yëpp au plan national dinaa ko partager ak grand bi ak euh, Muniru ñu dugal ko ci euh, WhatsApp yeeg yooyu pour que ngeen commencer réserver fi ñu jëm parce que boo fekkee da ngaa bëgg stade ba keneen bëgg ko problème dikk réserver fi ñu fi ñuy defee le meeting euh, liggéey ci matériel yi ñaata ngeen soxla ci chaise ñaata seen seen budget temps la ñu jox leen ku nekk li ngay yore nga commencé préparer wu incha allah bu loolu passé nag dañoo amoon mag boo xam ne day suñu xaritu taawu baay man ak mais mag boobu bu ju jege woon lool di coon sekk yàlla jële ko fi sànq bi may ñëwee gaare fii ci biti soxnaam jaga yit wàcc liggéey tey ñu koy jaal Sénégal yëpp John Seck moom ku ko xam xam nga Lat Fatim John suñu mag di taaw suñu bàppa donc ñong koy jaal Sénégal yépp di ko jaal wali di ko jaal it di goro ci kër ga di ko euh, euh Wa wa rew mi yépp daal jaal ko wa yep, mi yépp yalla nako yalla xare àjjana te yéexal ni maa ngi profité yit suñu benen mak bu fi yaayam joge fan yi di Abdoul Mbaye premier ministre Abdoul mbay di suñu mag ñu bokkoon classe ak rakam ak Assane mi ñun ñëpp eh, ak Iba Mbaye son petit frère kooku yàlla teel ko fi jële ñu nekkee xale lycée yaayam tam tante Mariette jóge fi il quelque jour quelques ñoo ngi koy jàll eh, Sénégal yëpp ndax maire Mariette ak ku xam Pa Keba Mbaye li mu représenté ci réew mi bu fi soxnaam jógee njabootam mit représenté ko ci réew mi ñun ñëpp dina metti ñëpp ñëpp ñu koy jaal ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim jërë ngeen jëf merci